Zabur xamal na leni amna ben coalition bo xamanteni kon euh, mom mo bëgg a bat Barthélémy Dias ci liste yi jot ngeen décision conseil wala yéen a ngi xaar. waaw ma ngi lay nuyu euh jot nañu décision conseil constitutionnel bi démb démb la ñu moo woo wax ma ni dafa am ben coalition bu def recours contre la candidature de euh, Barthélémy Diaz mais ma fa demee démb vers 18h ci lañu ma notifié recours bi recours bi nak ñu ngi nekk ci ci euh ma ngi dégg sax ñuy wax ni am avons wax candidature Barthélémy Diaz dañ ko mais lolu amul. Mhm. li tubab di wax ay spéculation wala ay manipulation li ma la mën a wax euh, heures recours boobu ni la coalition boobu def mu droit. Euh, euh, am na quarante huit heures ñun am nañu quarante huit heures pour def suñu ay observation ci recours boobu mhm. donc quarante huit heures yi jeexagul mhm. et ñun euh, suñu objectif mooy ñu déposer suñu ay observation tey donc foofu la ñu toll ci mbir mi donc Barthélémy Diaz ba fii may wax ak yow moom moo nekk tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu bi nga xam ne nii ci la bokk ma nekk seen mandataire Hmm. kon loolu ay li naan fake news la xibaar yooyu du ci wér ndax yéen indéegu leen seen tontu mais nag euh, ki déposé recours bi moom euh, xam ngeen ko parce que li nga xamante ni génn na ko tamit indi na sax décision boo xamante ni cour suprême moo ko génn woon jëm ci baat Barthélémy Dias dafa mel ni moom téye na fu dëgër de. waaw xam nga li li li doy waar xëy na sax xam kook ñàkk ko xam amul solo li am solo mooy def nañu recours ñoom waaye recours boobu li ci xaw a doy waar mooy Barthélémy Dias mi nga xam ne nii il est le principal concerné dans cette affaire mosuñu ko notifié décision wu cour suprême et pourtant ñi nga xamné ni ñom ñoom ñoo euh, def recours bi am nañ ko à leur disposition. Hmm. donc loolu aussi mën nek ay interrogation yu ñuy posé. Hmm, da nga jot ne ku ko jox kon wala fu mu ko jëlé ah mais fu mu ko jëlé war na ko mëna am koku sénégalais bu nek war nga mëna am dem au niveau de la cour suprême am euh, am décision bi loolu c'est pas du du du lu exceptionnel. Hmm. mais dal liñu liñu liñu xam te te te te mu nekk lu constant moo di euh, Barthélémy Diaz ba fi ñuy wax ak yéen mësuñu ko notifier décision boobu. Mhm. voilà donc les les li am moo ba am moo di def nañu recours contre sa candidature on va pas s'attarder ci les détails nga xamni les ni amul solo li am solo mooy def suñu observation déposer quoi, et puis dès que le conseil constitutionnel li muy wax parce que Barthélémy Dias ci li ñu japp fi ñuy wax ak mhm. euh, japp nañ il est il est encore éligible pour être candidat euh, à ces élections législatives pour next suñu tête de liste. Ah, bu conseil bi sa fan mi rek xalat ngeen plan B bu mëna a liste bi. xam nga fi ñu toll dañu toll euh, ci ci ci def ay observation Mhm. au niveau de la Cour suprême. Et fii may wax ak yow Barthélémy Toye Diaz moom moo nekk suñu Barthélémy Toye Diaz moom moo tête de liste. Mhm. donc euh, plan B C D E F loolu nek loo xam ne nii sax nekk nañ ci xalaat puisque ba fii may wax ak yow sa candidature n'est pas invalidée ba fii may wax ak yow il n'est pas considéré comme inéligible donc dis lu war a tax ñuy attardé wu ci ay détails yoo xam ne nii ñu kanam. Mhm. ñu koy sant di ko gërëm ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh Tidiane Youm.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 soxla mu tekkul lool gaaw leen seeti Serigne ba ci ki bëgg am jafe ba ci yow mi li jënti wàllum mu jafe ko ba ci yow mi am tawat bu la jaaxal lool ki am aaji bëgg ku ko ñaanal wala ku la defal xalwa gaawal jokkoo ak Serigne Omar Fall ba ci am na ay gàllaaj yu àdduna ak ay ndomb yu yéeme lool jaaru Serigne Omar Fall doo ko gis feneen ak garab di dox ci wàllu faiblesse sexuelle Fall maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy moom Serigne Omar Fall di ko yàlla baaxal mu géeju lool ci xam-xamu asraar daw leen jokkoo ak moom génn ci xat-xat yi ngeen ne ak seeni njàqare seeti leen ko gaaw nattal seen dund téléphone am di